sànq euh, wax nga ko yow yaa ko culture bi euh, ci wàllu ASC bi d'ailleurs quelqu'un m'a confirmé que les ASC ont été subventionnés euh, jafe-jafe yi bariwul foofu mais bu ñu ñëwee ci wàllu culture urbaine art mbir yooyu pourquoi nga am jafe-jafe ak non non non non non non benn jafe-jafe ak benn benn acteur culturel man li ma leen wax dafa leer ba mel ni midi ah, man yooyu noonu bon sama mag gi doon def man yooyu duma ci fekk. cest da ngeen di ñëw daal ñëw nañ organiser réunion fu malaat ñëpp toog peut-être ay benn benn ñoo ñoom ñoo fa absenté li ma leen wax leer ba mel midi acteurs culturels yi nekk géejawaay groupe théâtral yeeg ñuy def wàllum musique ak yeeg peintre yeeg ñooñu ñëpp nekk ci biir mënuñu ku am xew ñu subventionné ko Guédiawaye a un problème de trésorerie te mu nekk des entités différentes. waaye bàyyi ma ma yeggali bàyyi ma rek ma yeggali entité yu différentes yooyu dañu war a am benn entité boo xam ni bu am statut départemental comme les bajjanu gox comme ODCAV comme les personnes vivant avec le VIH sida comme euh, euh, euh, euh, les, les, les, les le conseil départemental de la jeunesse euh, comme les imams les délégués le troisième âge ñooñu ñëpp dañoo am ay entité yoo xam ne dañoo am statut départementale moo tax maison des associations association yi am statut départementale ñoom lañ fay attribuer ay locaux mu nekk seenu siège ma ne leen nag boo leen dajaloo yéen acteurs culturels yëpp ngeen booloo nekk benn entité départementale mais lan moo tax ba ba duñ leen ba duñ leen subventionné mais pour kii toog fii kii toog fii kii toog fii kii toog fii mairie bi amul fonds yooyu lu ko mooy ku nekk ay vingt cinq mille ak ay nanga lan la lay jariñ léegi nag nit mën na organiser dara ñëw indil invitation wala soutien au maire le maire mu jël ci xaalisam nekk am te keroog si ndaje ma ñoom ci lañ doon organiser su ma juumulee euh, journée mondiale du théâtre la xaw ma et cetera et cetera j'ai pris man ca la ma am ma dugal jox leen après ci la ñu am benn euh, décès la woon yaakaar naa su ma su ma juumulee après ñu daal di koy aj mais jox na jox jox naa leen man li nga xam ne man moom laa am. ci ndaje ma mais mais mais pourquoi. du temps de Aliou. oui. Euh, Sall ba muy nekk maire. Euh, ces entités culturelles là ak li ñu doon bari bari yëpp dañu doon recevoir subvention. mosuñ ko jot. dañ daan recevoir non da nga ko expliqué la rek. pourquoi Aliou ci boppam bi mu toogee xam nga lan la wax. dafa ne benn benn benn benn benn benn benn mbir laa xam ne tey bu ñu ma laajoon ma ne dama fa échoué. mooy côté culture maa ko seetaan mu toog nii di ko wax te li waral loolu mooy manque d'organisation bii nga xam ne moom moo xew man na gis nga man may man doomu dëkk balaa mënuñ organiser ñëpp dëkk dañ koy organiser moom laa lu expliqué léegi nii ci affaire pavage yi ay lii boo ko defee mbaa ñee duñu mer mbaa ñii mbaa ñee duñu la attaqué gis nga ñin notre objectif est atteint sant yàlla subhaanahu wa taala. macha allah objectif. déglu ma rek ma expliqué na. waaw ah. ñun dañu nekk ci mbir. le premier objectif c' lan c' était l' élection le deuxième objectif xam nga mooy lan mooy Ahmed Aydara au mois de janvier deux mille vingt sept ñu ne Ahmed lan ak lan ak lan ak lan la fi def ñu wax suñu staff yi ñu ne ñun ñi nga xam ne dañ naan ay jeunes politiques lañ gis nga li François Hollande def. Euh, Euh, en France nañ leen góor góor lu ñun tamit ñu commencé li def loolu bu ñu bëggee Afrique changer changer le système système système système warul yem ci suñu gémmiñ nii rek François Hollande dafa ne taux de chômage bi bu yeggulee fii ce serait pas candidat à ma propre succession ma ne leen Guédiawaye dafa am ay symbole yu fi ne comme lu mel ni stade Amadou Barry l'hôpital Roi Baudouin le lycée Limamoulaye pavage yi xam nga li ma la wax éclairage public et cetera lii bu ñu demee ba juróomi at yi jeex amul benn changement lu dul ni ñu ko fekkee noonu lañ ko bàyyee mais yow waroo yow sa ngor sax warula may nga taxaw naan da ngay yëkkatiwaat loxo non loolu warul mën a ne mais nag kantaan ak di gérer ay humeur nit ak yooyu non non non. ma suma ko nangu te politique. du tax mukk may man ma soppeeku. xam nga monde culturel bi. dafa dafa dafa yaatu. Euh, est-ce que mënuloo sàkk xaaral xaaral xaaral xaaral s'il vous plaît est-ce que non d'accord loolu ce que mënuloo wut waxtaan wut des voies et yoo xam ne dina permettre nga mën a subventionner le monde de la culture urbaine et des arts def nii ku dégg sax yaakaar ne ah, culture ba géej waay léegi li ñu arrêté c'est clair net et précis léegi dañuy def sax suñu benn festival international bu géejawaay ci foofu ma Malade ci boppam moom la génnee ñu ne ok d'accord nous allons mettre sur pied benn bureau boo xam ne léeg-léeg lii ma wax leen lu leer lu mel ni midi di yéen ñëpp dañuy dajaloo def benn bureau départemental bu ko defee nag ñu daal di ñu daal di mais loolu yomb na may yow président de la république ak milliards yi mu yor nii yëpp yëpp yëpp yëpp yow imagine nga yow mu ne mu ne subvention bi ñu war a dox les acteurs culturels par an wala ministère de la culture artiste bu nekk biir Guédiawaye bu nekk biir Sénégal. pas ah, artiste. non non dama ne ma ne ma acteur culturel bu nekk biir parce que la culture là nekkul mbalax dong de déedéet du loolu dong de peintre yi yëpp ci lañ bokk ñëpp ci lañ bokk ñoom ñëpp ci lañ bokk mais ne noonu ñoom nga ne ku nekk yow ministre de la culture dañ jox subvention non on les organise ñu ne enveloppe bi kat. ténor yi tey bi ñu ñëwee léegi léegi lii nous avons dégagé une enveloppe de 17 milliards pour euh, euh, les activités culturelles léegi léegi lii ñu daal di ñu daal di joxe dëkk kay noonu lay doxee mais quant à ministre de la culture Aliou Sow mi toog fi mu toog par contre ay ay ay artisan mën nañu ñëw ci yow lu mu mën a ne muy waykat muy théâtre kat muy peintre muy ñu def wàllum poésie et cetera nga ñëw nga ne man kat dama am benn événement daal di. teg ne 31 décembre lii lañ bëgg a def ak lii ak lii ak lii 31 décembre bii passé ni ñun dañu organiser suñu suñu place de la libération foofu ci buntu mairie bi inviter les les les les jeunes talents te ci ndaje moomu ñu defoon noonu ci biir mairie bi foofu la idée boobu génnee ñu leen léegi kon baax na léegi nañ leen ko tëgg fii au lieu ngeen di dem ñu leen di yóbbu ay Dakar ak léegi ñu organiser ko foofu noonu pour la première fois te xam naa ne ren sax moom day gën a neex. lan ngay tontu